ëj tay la 15 de nga dem bindeef mënul wax ba tay moom du ma am dara daa damaa échec la xaa moo benn mbëtt xool cooy jabar waa jëkkër si loo ne yaa ngi cool maa raw waa yow tey xew ba nga woote heure bi waa ah, xam nga ne mooy loolu paa nelaw na bu yàgg. est bi nelaw na nelaw na. est <laughs> bi kay yow xam nga xam lan laa bëgg. xam adduna bi yëpp xam nañ ne tey la 15 août. dafa leer. damaa gis benn appartement bu mool bu luxe. ma bëgg man ak yow ñu dem fa. nga waaw ñu dem fa man ak yow def ba mu baax def waaw yaa ma gën a xam daal mooy loolu. dama bëgg daal bu mu la weñ takk nga xam ne dangay sonn bi di mën a fu ne mën a di la cokko nga yóbbu. li ah. ah. de léegi yow yow xool xool xool yow la yow solo la pare parce que heure bi léegi mu jot dégg nga. pare naa. waa jeex na yow solo la pare boo paree rek capp ma. d'accord ma dallu waale tuuti waaw. yii tey du yomb. waaw ok waaw ci kanam bisou. bisou. tey sama mbëtt Mountakha ma ñëw mu gaaw. alhamdulilahi rabbil alamin yow da ngay rek di nga xam ni yow ba sa di wuyu du nekk ba sa di wuyu yow boobu wuyu ko may wax mu naan kaay cuqutaan man làmb sama loolu booy booy bi doo xaj booy bi doo xaram dëgg la da saw dañ laa wax lu neex ba ngay saw yow sa bàyyi ci néeg bi la lay sawloo yow waxuma quatorze xaw ma quinze ut xaw ma laa koy defal am rek xam nga koy sàcc yi lii yàlla daa dogal koo ko mas a ku ma ko mas a jox rek samay gone ku ci dëgër bopp faat nañ dafa fa yàlla aw barke yow man xëyaamu lakk bare boo liggéey yow yow ndaw ndaw ni ma bëggee xale yu jigéen ñi ni muy amee ndaw noonu laa bëgg góor ñi di am ndaw di nga sàmm ndaw sa ndaw si nii wala si naayow moom mooy ñëw. moom 15 moom doomu aadama munul wax a wax ba lu ma bëgg a def du ma ko def moom xam naa ci dara. benn doomu aadama mënutoo ko fexe doomu aadama yi sa bàyyi la la ci biir kër gi yow. 16 août au